Touba Daaru Manaan askan wa fa yeewoo teykat ci ngoonuk alxemes gi aw tiis ak aw naqar lañu gontoo benn xale bu jigéen bu war a am ñeenti at di wuyoo turu Marem Ñang moom la bàjjenam faat gannaaw ba ko ñamee ñaari paaka ci biir bi buñ sukkandikoo nag ci xabaar yi nga xam ne nii jot dinaa ball ci mbir mi neneen kat bàjjenam boobu nga xam ne nii moo bokk ak waajuram bu góor maanaam papaam ndey ak baay moom kat dafa am wérade xel gannaaw bi mu defee jéye ji maanaam faat xale bi da koo làq ci ron ab lalam gannaaw nag bi waa kër gi gisee mbir mile ci la ñu daal di woo polis ak sapeur pompier ñu ñëw jël néewu xale boobu nga xam ne nii bàjjanam moo ko faat te ñu ne dafa am wérade xel yóbbu ko ci morgue bu hôpital Matlaboul Fawzeyni kon nga xam ne nag moo di bàjjanam jamono yi police teg nañ ko loxo ubbi ci ab enquête buñ sukkandikoo ba tey ci xibaar yi nga xam ne ni ñeel mbir moo moomile bàjjanam bi yàlla teg wérade xel mu ngi war a am ñaar fukki at ak juróom benn wax nañ ne sax guléet muy def mbir yu demee nii dun ne guléet ñuy gis ay musiba yu mel nii di bàyyeekoo ci koo xam ne nii dafa am wérade xel laaj bi ñu ciy samp kay mooy ndax kon jotul ñi nga xam ne nii dañoo am wérade xel ñu am beneen taxawu boo xam ne nii dañ koy taxawu ci ñoom lu dut bàyyi leen ñuy lor askan wi wala sax ñoom ñuy lor seen bopp